par rapport à ce que tu dis xam nga moom monsieur Mbodj il dans le F24. Mm-hmm. donc F24 seen cheval de bataille bu fekkoonte ne da doon tudd naan seen euh, plateforme non à une troisième candidature sa représentait pratiquement le plus gros. ou la plus grosse part. c'était même pas seulement le F24 c'était euh, partout euh, parti politique yëpp ici donc c'était euh, euh, tey jii nii amoon na fi ñu doon wax mouvement jàmm gën troisième mandat. Mhm. amoon na fi suñu naataango journaliste à peu près ay cent yu bindoon benn communiqué mhm. amoon benn texte pour dire non à une troisième candidature. Mhm. donc yooyu noonu yëpp ça devient des sujets ou des combats désuets ou dépassés dès l'instant que. ki ñu doon wax loolu noonu tax taxaw na ne na man bokkatuma donc on se réinventer mm-hmm. donc se réinventer mooy waral dégg maintenant on commence à sortir la notion de prisonnier politique mm-hmm. parce que ça c'est une c'est trouver des nu mu tuddati des moyens de se réinventer pour continuer à exister donc aujourd'hui buñ ci xuusee si biir débat bi après quand on reviendra sur lan mooy société civile et cetera bon dinañ ci gën a développer mais déjà xam nga boo toogee ñu ne am na mille personne mille personnes yoo xam ne jàpp nañu prisonnier politique la amaana c'est mille d'accord mais ci biir ñooñu xëy na benn benn nga mën a seppi nga ne ay wax lañ leen tëjee mais ñu si ëpp ay jëf lañ leen tëjee ay jëf yoo xam ne Adja doo ko def ajaa Bidou du ko def Pape Moussa du ko def monsieur Mbodj du ko def te def te yaakaar naa du ko digle parce que nit ku taxaw dog réunion kaale ñu dem taal lii wala kaale ñu dem def lii c'est des actes criminels